nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen sant sant bu amul ab ndax lii nag du lu bees loo nga xam ni ñaar fukki at ba léegi dakkul waaye yéen ñi nekk fii Ya karena ini gumba amal na cer. Nak tahu taxaw Tahu taxawaay bu rafet tànn li gën ci Politik. Politik loolu Politik sensu du Ki sama mbokk la kii sama xarit la Waye bu fekke dañuy tanal ngumba nanu xawal ki ñu yaakaar ni moo tane ci ñu bëgg ñu jàppale loolu mooy politique yéen jigéen ñii ak góor ñi ku ci am sa doom ju rafet juróomi xale lu góor bëgg ko xam nga kam ko cay jox mbuba itam bu koy xale lu góor bëggee war nañu xam ku ko war jox bëgg nag ñépp ci am droit waaye nag dafa am loo nga xam ni il faut que nit ñi xam ko nit ñetti diglaam benn digg bi mooy xam-xam benn digg bi mooy am-am benn digg bi mooy yéene ku ngeen di natt nag natt leen ko ci ñu leen jox bu ngeen di tànn natt leen kenn nekk ci loolu ñu leen jox ndax ki nga xam ne am na te yéene te xamul mën naa juum ki nga xam ne yéene na te amul mënul def ki am te xam te yene du def ki xam te yéene te am mën naa def candidat bu ngeen am rek critère yooyu teg leen ko ci ñett yoon bu ngeen ko ci tegee rek du ngeen juum mais ku xam am yéene mooy candidat ki amul yéene te xamul du def waaye nag def da ngay mën Abdourahman mii ma leen tànnal duma koo tànn du dama koo tànn ni dama neex am naa mbokk yu ma ko gën jege am na xarit yu ma jëkk xam bi ñuy wote élection yi ma ni leen suñu d'accordul ma def Abdourahmane premier adjoint bàyyi ko mu liggéey man damay bàyyi maire bi xam nga lu ko waral ki ma fiy teg il faut mu wóor ma sama gannaaw sama kanam dina ko jaarale yoon te nag rusloowu am na loo nga xam ni ñu bari duñ xa xam Abdourahmane musul def ba tàggu musuma ko laaj lu muy def waaye musul def lu ma naqari kon nag moom moo nekkoon maire bi man honneur bi laa jëloon ñu naan xalifa ja maire ngumba honneur boobu nag laa jël ba mu jeex gàll ko ko waaye nag changé wul dara ci yëf yi ni mu daan doxee lu dul moom nag c'est le vrai maire léegi Abdourahmane monsieur le maire de le premier magistrat de c'est Abdourahmane Diop kon nag yéen dama bëgg ñun ñëpp ñu takku jàppale ko jàppale du Abdourahmane la jàppale de ngumba ngéwul gii la ñuy jàppale ndax ngumba la ñu am yàlla xam na ne su gisoon koo nga xam ne li mu man Abdourahmane mënu ko bu subaa ma jàppale ko ndax ngumba rek am solo ñun nag ñaar fukki at ñu ngi ci arène politique bi waaye nag yàlla mii ñu tiim xam na ni politique mu ñu neex waaye nag Abdourahmane bi sax bëggul politique bàyyi na ba tàyyi sax waaye dama ne ko Abdourahmane li nu yàlla may maag yow ak Pape Ali bu ñu bu fekkee ni dañu bëgg lu sedd suñu bopp ba dem toog suñu kër génne loxo yi ci ngumba war nanu waa ngumba ndax dëkk yëpp yem yàlla mooy joxe dëkk day am foo nga xam ni yàlla da koy may ñu mën a jàpp du sax ñoo gën a méritant waaye buur yàlla mooy def lu ko neex ngumba dëkk bu ndaw la kebe meer mat nanu ñett daaru muslim mat nanu fukk li nu xam ci histoire ngumba dañ laan yónni ay oto ñu dem tàccu ñibbisi te yàlla may ñu ngumba nekk fii diriger département bi du mérite yàlla ñu ko may rek kon ñun ñëpp nañ ci jàpp damay wax ni nit bu ko yàlla dimbalee day sonn ci li ko mën a amal njariñ des fois damay dégg ñuy wax may dëggu ñëpp yàlla nag du may ñëpp xel waaye nag buur yàlla nee na ci alxuraan ñi am xel la yoo xal ñu ngi jëm ay élection li ma dégg ñu naan élection yi ma sàmba ma demba géwul amu ci intérêt yéen seen yoon ci mag Macky Sall lu baax ci ngumba rekk leen war a tax jóg gannaaw yàlla may na seen doom mu egg fa ñuy séddalee bu ñuy séddalee mu jël naram indi waxuma li ngeen gisagum déjà démb rek ñi nga xam ne war nañ defal tëli goudron bi ñëw nañ fi te loolu mooy li gën a jafe lu ko waral li ngeen ñu jàppale bañ egg fa ñuy séddalee tong tong ma donc elle explique Mon mille Macky Sall di l'acte résultat département Kébémer bu nous Vous da a bëgg responsable sens même je gagne le département même le département bi même département bi pas avoir amul victoire bi sens kon nag tey lañu war a gën a takk suñu ndigg nag tey lañu war a gën a takk suñu ndigg delloo ko ci njukkal dañ doon wax sargal sargal bu xalifa nag mooy élection yi tout géewul mobilisé ñu am fi escort ba nga xam ne mësuñu ko fi am looloo koy delloo njukkal damaa yaakaar ni xel nanguwul nga ji sa garab di ko suuxat ba mu ñor ngay wat ñun la kaay ñu dem ruujiwaat bàyyi ko fa te nu ruuji àgg nanu foo nga xam ne nag fii mu nekk dañuy watt rek nanu watt ba mu jeex ak ñu dem ruujiwaat loolu mooy xel li may wax nag xalifa mii taxul ma koy wax bu ëllëgee keneen mooy jiite gumba waaye bu eggee ci kaw jàppale leen la muy am mu andi ko mu jariñ gumba bu ne vote yi du intérêt waa ngumba ana ban vote moy intérêt wa ngumba yenen vote yi mo ci ciy jariñ ngumba dara bi rek nak nga xamni mom lañ def le coordinateur départemental benn bokk yaakaar bu len dafa ni damay jàppale abdourahmane de man ngumba moo neex ni balay jàppale gis nga candidat yi ñu amoon ñu bëgg ngumba muy magee gay muy fàllu ku ci gañe woon itam lii may defal Abdourahmane laa lay defal li may def ngumba laay def def ma ngumba ngir politique dama fee dëkk juddoo fi yaroo fi jànge fi li ma am yàlla wërsëg ma ko ma bëgg a ñëw ñu bokk man dépendre ma ci kan mooy maire wala kan moo nekkul maire man opposition bi dama naan leen war ngeen ma ménager ndax bu ngeen gañee man nekk seen partenaire nan yàlla li mu mayee kon nag damay wax ndaw ñi aussi pour ñu xam lan moo war a nekk seen engagement ñu xam ni ñun ñépp dañu am devoir ci groupe boobu yéen ñi toog ñépp am ngeen devoir ci groupe boobu mooy li ngeen yaakaar ni moo gën ngeen jàpp ci li ngeen yaakaar ni moo gën ngeen jàpp ci man suma jàpp bi may jàpp bu ba tax amul lu muy xaar ci Abdourahmane am lu mu mën defal kon yéen xale yi su ngeen jàppoo ne Abdourahman wala xalifa ku mën doon bu leen jàpp pour am lu leen defal ndax liggéey bi ñu liggéey yéen lañuy liggéeyal lotissement bi ñu def war fa indi ay làmp war ko terrasser war fa indi ndox kuñ koy defal man duma fa kër bu benn samay doom duñ fi ñoom ñoo ko moom ndaw ñi kon yéen ndaw ñi yéen la liggéeyal bu désintéressé xale bu ma loolu moo jaañ fada moo ma ko jàngal mu xale mënul may mag xaalis xale mënul may poste mag mag mën na may xale xaalis mën na may xale post xale xam nga lu mën a may maga respecté ko déggal ko ñaar ñu ànd ñu nekk échange kii de ci gis boppam ki gis ci boppam noonu buur yàlla dafa àddina loolu laa amoon lu ma leen di wax

bu dee benn couple jëkkër ak jabar li ñuy am ci weeru deew yi li ñuy dépensé wu ak li ñuy def ci kër loolu mooy budget d'investissement ak budget de fonctionnement boroom kër lu mu gën a investir ci kër gi rek bu yàggee mooy gën ci waa kër gi waaye bu jëlee xaalis bi weer wu dee taal oto essence dugg fii costume ku bare bu yàggee day feeñ ca njaboot gana ñun géwul bi ñu commencé ba léegi bu ñu amee téeméer juróom-ñett fukk bépp dañ koy def ci biir dëkk bi loolu lañu commencé woon ma xamal leen taux bi ñaata même bo demee France budget fonctionnement mi ngi nek juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar budget d'investissement nek fuk ak ñett lolu moy valeur yi nga xamni ni ñi du ngeen ko mën gis boo gisee géewul demee ci développement amna na lu xalifa def ndaxam waye amna lu mairie bi def bu ngeen demee seen terrain basket bi stade bi ak yeneen ak yeneen maire beeg waaye bu fekkoon ni nag ki ma fa teg nag muy maire bi dafa jël xaalis bi nag jël carburant bi wëndeelu Ndar Louga France Guinée dikk jaabante kon stade bi doo am leneen am loolu mooy li nga xam ni moo important sama dernier appel mooy yéen ndaw ndaw ñu nag xam leen ni yéen la liggéey man mi xalifa ja bàyyi naa politique ci ngumba wutatuma fi benn fas waaye li ma doon def de waaw continuité la dama koy yokk rek ndax politique taxul woon ma koy def bëgg a nekk maire taxul ma koy def mumba dama daan dégg ñu bari naan poste maire bi dafa important waaye boo damoon Dakar naan maay maire ngumba maay maire nguraan kenn du la déglu amul lu mu lay indi amul lu mu lay yokk waaye ñu nekk pour ñoom maire important la coono rek la maire ku ko xam coono rek la amul benn avantage boo nga xam ne maire dana la ko indi maintenant ki nga xam ne liggéeyul amul revenu maire baax na ci moom bu wetee 6 millions essence yor ay marché moom da ci dund waaye maag Abdourahman mii duñ ci dund loolu bëgg naa ngeen xam ko bis bu ngeen di tànni ndax da ngeen tànni de tànn leen ku mel noonu ku ñëw ku ñëw pour dund ci bu leen ko tànn ku ñëw te loxoom jotul gannaaw bu leen ko tànn loolu la amoon lu leen di wax di ñaanal monsieur Abdourahmane Diop monsieur le maire bii yàlla na oyof ci yow oyof ci conseil municipal bi yépp di sa njiglaa di njiglaayal dëkk bi ci barke sayidina mohammed di nuyu monsieur khalifa dia di ko ñaanal guddu fan gu ànd ak wér ba lépp li mu yéene ci dëkk bi mu defal ñu ko ndax kat moom jigadiwuno dëkk bi nag dafa fekk ni ñun ñëpp dañ koo bokk dañ koo bokk nag te mënuñu koo séddoo waaye kenn ku nekk am na lu la ci war te nit ku nekk am na lu mu man nit ku mënul dara amul ku amul sa xaalis boo def ci dëkk am nga sa doole ku amul sa doole am nga sa xalaat bu rafet te ñett yooyu yëpp benn bu ci ne baax na ci réew baax ci dëkk baax ci kër ñu dërmal nag élection yi législative yii di voté bi nga xam ne nag dañ cee war a tànn ndaw yi ñu war a teewal ca péncum réew ma di lu am solo ndax ab kat bo fa amul ndaw bala amo fa ay ndaw do fa amal kula joyal say jafé jafé do fa amal kula waxal say bëgg-bëgg kon nak nañ ci japp bu baax a baax nawoon fa woon rek nañ ko daan defé nañ ko yokk te bañ ko wañi nak di ñaan yalla yalla ci jamm ba 31 juillet jamm ñu voté ko ci jamm ci ak fayda bañ ci xulo bañ ci waxante wax ju ñaan ndax wax ju ñaaw moom day yàq rek waaye defarul te mayewul tamit ndam vote moo mën a maye ndam kon nañu vote ci fulla ak fayda di jiital suñu nuyoo nag suñu wasila Cheikh Seydi Aline Boye c'est important maanaam nuuru islam ñëpp a ngi nii tey ngi toog waaw ndaxte nag ku euh, xewle boo gestoo gis say bokk la gën a jege sa xel day dal waaye ñu lay gunge seen xel dana gën a dal loolu maa ngi koy teral ñëpp ñu ngi nii tey toog waaw ah bi ci desit dañuy dañuy wa aatul buyuuta min abwaabiha alxuraan dañu booy dugg ci néeg na nga jaar ci bunt ba bañ a jaar ci fenêtre moo tax chef de délégué de quartier bet suñu jaay mortal ngir fokk ñu beral ko nuyoo moom it di ko nuyu moom it bu baax macha allah di leen di nuyu nag. Euh, euh, monsieur le coordonnateur moom neen sax bu ko kenn wax monsieur le maire mais daa am tur yoo xam ni kenn mënu ci dara day sax faaw de dem loo tax même nit ñi buñ ko wax monsieur le maire sax ko tey donte le moom leeral na ko nee na leen man maire honoraire laa sa nekk mais ma sa naa loolu tamit ñëpp gëm nañ ko waaye monsieur le maire ñun ñëpp commencé ko ci sama ñoom yaay ña nee toog suñu wasila sayyidi ali mooy ñepp ñeppal ngu bëgg ñëpp la amee waye rawati na ñun parce que eh, tap ci sa alal yomb na lool donte sax tab moom yombul ya mais tabe ci sa alal mo gëna yomb ya waye tabe ci dara jana mo gëna jafé jafe te yow ya lool nga def kon ñun ñepp amee nañ ci njukkal kon duñu def len du doy leen sant len gërëm abdourahman nag mënuma wax ci mom Bangun sisir Tong Antuka Nyiwah Dengan ben eh, Lam diung In ironel sepa le perintah Kon iki municipal Bim andal nyep Nyilin di nyan Nyep nyep nyep mungkin deger Me khalifa Nepal le plus riche du Le Nepal lom le plus riche du pays ñàkkul xëy na am ñu ko fi ëppale mais pourtant daa boole moom lépp yooyu yëpp li mu yor kas néew mais ñëw nangu investir ko ci dëkk bi nit ma nit ëppale na ko te waa waxul dara ci dëkk bi kon moom ñëpp cant ak ngërëm lañ ko amel ñëpp cant ak ngërëm lañ ko amel euh, di nuyu tamit ñi nga xam ne si ñëpp ñi ngi àndoon ak monsieur le maire di ko jàppale ñooy defe naa ni suñu jaay ji wax na ko nee na dara soppeeku dara soppeekul waaye nag cax na leen parce que am na ñu wax naan élection yi amalu ma benn intérêt mais loolu sëñ bi xanaa ko xamul dara yoo yaa koy wax sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu bañ ko laaj mbir politique dani ah ni tekk ba càgg ni politique day tojalu njaboot la ku ko bañ sa kër nag doo am koo yónni kon ñi wax naan la politique c'est l'art de Euh, loolu defe naa ne beneen vision la te du dëgg te mooy nga ñëw ci pénc bi jël li nga am parce que du ñëpp a yor dooley poos waaye eh, am na noo mane dëkk bi mu ngi mel ni miir bi ngeen gis ay biri nga jàppalante rek ba bâtiment bi taxaw kon bu kenn kon bu kenn xeex bu kenn xeeb xeer li nga yor bu kenn xeeb xeeb xeer li nga yor mën koo teg ci ngumba mu jëm ci kaw ku xamoon ngumba démb xam ni ngumba doxul dafa naaw c'est la vérité yu géewu doxul dafa naaw dafa naaw géewu s'est envolé dafa naaw ah léegi nag le coordonnateur wax na ko wax na ko nee na kuy dénk da ngay dénk ki nga ki nga am yi wóolu ki nga wóolu booy maye nag ku la neex nga may ko lo tax wolof danaan la boo amee saw fas bu ko dénk sa xarit dénk ko xaritam jàpp naa ni nag moom dénk na fas wi xaritam ndax mooy gumba gumba mooy suñu fas ñun ñëpp buñ sañoon yéeg ci di dawal kenn duñu raw ah, kon bëgguma tey kàddu gi lu yàgg kon daal ñu ngi nuyu ñëpp di jaar rek ñu ngi nuyu mbooloo bi ñun du ñuy politicien lenn dong ñu dugal ñu jàppale président Mamadou Gueye wallaahi dafa nekk nit ku baax man valeur lay toppe doomu aadama ndaxte nit ki nag avenir moo koy liggéey léegi nag Sénégal am na fu mu toll mais géewul moment bi régime Macky Sall le président Macky Sall daf ñu favorable aussi il faut ñu xam bu fi jógee ki fi ñëw ëllëg xamuñu ndax dana xam fu géewul féete kon li nga fi desee nañ si profitoo ñu defar sunu ñun nag dañuy ñëw fii représenter la président Mamadou Gueye maintenant ma Gueye élection yi passé am na lu amoon malentendu la waxtaan nañ si mais présidentielle ñun ñoo ànd campagne ñun mënuñoo gëm nit mu joxoñ ñi faneen ñu lànk loolu duñ ko def élection yi ñu jëm nag ñi ngi si biir képp ku nekk faneen engagé wu le président Mamadou Gueye engagé wul CCN ñun moom élection yi ñu jëm dana ànd ak yéen campagne parce que li ma gis Sénégal léegi nag dootul politique mais terroriser nit ñi aussi dem ba nga xam ne nit ñi amatuñu fitu wax président Macky Sall laa ànd mais pour la internet bi soo waxee ñu saaga la ndey nga waxee beneen côté bi ñu tàccu la ñu bëgg ko seetaan mais loolu dafay yow bis na ko tey danañ ànd ak président Macky Sall ànd ak yéen cent pour cent waaw ku mu naqari xaaral suuf si duñ si arrière un centimètre waaw parce que nag il faut que ñu jël aussi suñuy responsabilité waa ngumba xalaat bu baax xam ne am na président bu ñu jege woon trop mais projet yi rombul dëkk boobu rombul dëkk boobu kon nan xam ni waa Louga dañuy jàppale Moustapha Diop pour mu defar Louga ñun tamit nañuy jàppale suñu doom pour ñu defar géew man géewu laa gëm góoba fa nen dëkk boo dem responsable ba fa dëkk gars yi koy jàppale pour mu defar seen dëkk yow nga bëgg a jàppale koo xam ne bu ëllëgee bu faloo amul lenn lu mu lay indil pour la nanu am fulla n'est-ce nag bu passé pour man parti amu fi lenn moo fi am muy géewul mais bu ñu demee ba su ma taxaweek ak Abdourahmane sax ñu naan taxaw naa ak Abdourahmane loolu dootul pële loolu noonoon ah même bu élection yi jeexee rapport dafa a rafet je que loolu mooy politique donc kon daal pour guddal pour gàttal président Mamadou Gueye bu ñu joxañee xar sax li topp ci sunu avenir politique ñun daan ko topp wasalaam asalaamaaleykum mbokki géewul di waxee aussi ci kàddu LDR Yeesal bu Modou Diagne yaakaar naa ni ma gën a xam si dëgg dëgg dëgg la jeune réformateur leen ma xamee ndaw Modou Diagne laa mas a nekk ci politique yaakaar naa tey sama mag dafa euh, xaw a libat moo tax teewu fii muy soxna Fatou Mbengue yaakaar naa bu fi ñëwoon sax moo waroon a jël kàddu tey si parti LDR Yeesal mais li may firndeel rek encore une fois de plus xam naa ñu bëri tey teewaay dina leen jaaxal mais ñun moom lu narul la wax mais lu xas ba nar moom c'est fini sa incha allah engagé wu nan pare nan pour battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yaakaar pour une belle victoire éclatante yaakaar naa ni sunu leader politique loolu la ñu mës a sant si loolu la mosaan a dox depuis 2019 2018 2019 ba tey mi ngi ci coalition benn boo ko yaakaar mi ngi si def liggéey bu am solo te incha allah de dorénavant ñun tamit dinañ taxawal liggéey bi yooyu yëpp bu loolu weesoo nag ñu tàllal loxo ñëpp di lancer benn appel pour la jeunesse samay morom samay bokk yaakaar naa ni souvent dama koy wax Macky Sall amul problème mu pay amul problème mu maire yi problème mu Macky Sall mooy problème jeunesse bi donc Macky Sall problème mu jeunesse am. donc je lance un appel très solennel à la jeunesse guéouloise que nous xam li ñu bëgg xam y a une jeunesse consciente d'abord parce que en bi fi mu toll enjeu élection yi yaakaar naa ni fi Sénégal toll ñu naan réew mi metti na cohabitation c'est réew Sénégal à donc nous la jeunesse nous devons être conscients xam yan élection lañ jëm et nan nan war a demee élection yi pour may la majorité président Macky Sall à l'Assemblée nationale donc je lance un appel solennel à la jeunesse géouloise ne nous mobiliser, ne nous tac, parce qu'on a une opposition jeune. On a une opposition jeune. opposition si ni ni j'ai l'habitude de le dire nous sommes jeunes et modestement aussi nous sommes simples si l'humilité ne nous parviennent pas de dire que nous sommes des super diplômés nous oserons au nous oserons au moins dire qu'on nous a bien formés donc yaakaar naa bu ñu tegee benn mën nañ de donc alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu ngi jégalu ñëpp parce que toogaay bi yàgg na ñu may ma tënk ko ñu commencé xam ni bis naka tey suñu campagne pour élection législative commencé na loolu moom moo doon il réunion bi beneen bi moo doon ñu may monsieur le maire mu mën a saafonte ak yéen comme bàyyi na politique ci biir géewul mu mën waxtaan ak ak yéen comme timis jot na nag man dama koy tënk fi may njëkkee mooy di sant ñëpp gërëm ñëpp te famille comme ni ko Cheikh Samb waxee maa leen di gërëm yéen ñëpp gis naa engagement yi di gërëm dëkkandoo yi ak waa quartier bi tàmbaleeg si Baye Mor di gërëm ñun ñi mës a ànd ñëpp muy coalition Benno Bokk Yaakaar tey gis ngeen ni convention citoyenne deneen wax na RDR wax na euh, AFP jay ba la comme ni ma koy faral di waxee jay ba dem nañ ba jaxasoo ba kenn xamul APR la wala euh, AFP la ndax ànd bu sincère donc ñu ngi koy sant di gërëm beneen cant bi ak ngërëm bi mooy sant bu baax monsieur le maire Khalifa wala boog tontoo Khalifa parce que pacte bi léegi loolu tonto <laughs> tontoo Khalifa ja waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu duma ci guddal parce que moom xam na man xam na en gis nañ taxawaay bi comme ni mu wax defalu mu ko man aussi defalu ko woon moo tax ñëpp ñu mës ànd dama leen di wax di man li tax ma ànd ak xalifa mooy jàpp naa ni mën na ci géewul lu ma mënul te jàpp naa ni même su ma ko su ma amoon li mu am géew moom ma am xol bi mu am loolu moom moo tax te comme ñun ñoo fi am ay doom yu ndaw moom mu nangu sacrifié wu jàppale géewul ñun ñëpp dina war boot si gën am man loolu laa mës a gëm loolu laay doxee terewul nag man ak moom daanaka ci xuloo xuloo la ndëkk parce que intérêt géewul la ñuy di tubaab ne dañuy wax ni conflit bu nekkee conflit d'objectif amul problème conflit interpersonnel moo moo garaaw mais tout le temps ci ay objectif mën nañ ci werante donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla àggaleel ko ay mébétam may ko gudd fan ak wér gu option bi mu jël tamit teg ko ci suñuy loxo ñun nii yàlla bu ci am benn gàcce ci laay profité di joxe excuse Badou gay, sa Badou comme ni nga koy xam ne moom benn la nit ñi li ñu xam ci ay xarit wala liggéey ñi ni feste nañ xam mais nag moom depuis bi nu jëlee ADG ADG suñu génération bi jëloo na ko depuis boobu lañ xamante euh, ay année 2004 cinq la lañu miinante boobu ba léegi ay xarit la du ñu réeroo ba tey jii di ñu waxtaan ay cours yu mu doon def moom moo tax mu mujjul ñëw donc mi ngi leen di sant moom tamit di leen gërëm euh, di wote di wane engagement leneen li nag mooy ci de mettre en place comité électoral communal maanaam ban kuréel mon mooy àndandoo ak yéen dem ci élection yi comme nañ ko daan defee amul ben changement comité de quartier yi dañ leen Ascalis euh, as pour ñu def ay porte à porte ci élection yi di dafa jàmp ak yépp amul meeting de quartier dañoo bëgg comité yëpp dugg ci biir nit ñi waxtaan ak ñoom surtout ñi nga xamante ni ànduñu woon ak ñun tey jii nii am na ñu bëri ñu bokkoon ci beneen boor bi ñëw nañu fas yéene ànd ak ñun ñi ngeen fi gis ak ngeen gisul te loolu déjà c'est important donc quartier bu ci nekk bu leen sauté benn kër ñu dugg ci def porte à su demee ba le 29 ñu def benn meeting bu mag comme ni ñu ko defee woon bële terrain basket ñëpp ñëw ñu daje fa saafoonte mu mu jeex. il faut ñu gagner Géoul et largement et c'est possible parce que la ñu amoon xëy na dina am ñoo xam ne dañuy dem ci leneen mais am na ñu bëri surtout ay jeunes yu ni ñun dañuy ñëw ànd dañuy ñëw ànd ñun pour liggéey loolu moom moo tax man maa ngi sant bu baax jeunesse bi ñu àndal Khalifa Dia amoon ay ay ay ay ay ay jigéenam ah ay jéegam mais man amna sama ay jeunes te jeune yoy ci góor ñi la ak ci jigéen la mooy ba pare boole koog euh, diriyànke xalifa yi yëpp mu nekk benn <laughs> benn dànk il faut ñu gagné pour que xalifa mën a sigi il faut ñu gagné pour que demee aussi su demee si département bi ñuy xëccoo dara ñu mën a dóor suñu loxo ci table bi nit ñun gagné nan donc dañuy laaj pour que Macky Sall président Macky Sall buy recevoir Khalifa Dia jarul mu naan ko maa gagné géwul parce président ku muy recevoir xam na sa ay résultats bu bare en fonction de cela si la lay fullaal wala mu bañ la fullaal te mbir mi ay séddoo rek la du leneen Sénégal séddoo la te géewul mi ngi ci rampe boo xam ni kenn waratul des gannaaw donc loolu daal lan amoon luñ ciy wax luñ ci fàtt nan nu baal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp comité électoral yi nan jege comme ko defee woon jege Dieynaba Sall dee leen jox seen budget dem campagne donc loolu daal mooy mbir mi ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf